noonu la muy weer wu ne bu bu amee xibaar yi ci gox yi biñ ko defee nag ba waxtu wi jot lañ jokkoo lañ jokkoo kër Sëñ Muntaxa fekk na nag gi déggun benn xibaar bu ne feeñ na fenn kon buñ jokkoo kër Sëñ Muntaxa nag wax ko ko nag mu daal ko wax ne kon nañ xam ne suba mooy mottali weeru weeru koor gi di fan weer yooyu fan fan wi di ajjuma kon nga xam ne gaaw ci boppam ko weer weeru weeru mooy mottali weeru koor gi su gaaw gaaw ci boppam mooy benn fanu kore gi ñu xam ko waaw suba mooy mottali weeru koor gi moom ci fan weer yooyu la fan weeru koor gi ginnaaw suba nag di di di gaaw kon ñu xam ne mooy benn fanu koor gi na ko ñëpp xam kon ñu ñaan ñëpp xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ñoo ngi sant nag bu baax a baax ñi ci jàpp ñëpp rawatina waa ma Moukhaddamatoul Khidma ak coono yi